borom yaa ko def wala waaye attention attention attention diggante Boy Niang ak Balla numéro 2 loolu combat bu doy waar lay doon cher bu doy waar bu yéeme parce que combat bu historique la combat la bu nga xam ne dafa am ñaar yu ci laxasul j'évoque encore l'histoire Balla Gaye numéro 2 ñu ngi ko tuddee Balla numéro 1 Boy Niang numéro 2 ñu ngi ko tuddee Balla Gaye numéro un ak Boy Niang numéro un daje woon nañu Boy Niang numéro un daan booy Balla Gaye numéro un waaye attention. loolu revanche la bu nga xam ni de par l'histoire ki nga xam ne mooy Balla Gaye numéro deux du ko bëgg a def waaye on verra ndax Boy Niang du delloo Boy Boy pour fa ko doon doon delloo woon loolu mooy coono waaye mu am leneen leneen la ci la ko Boy Niang numéro deux lii ko. moo daan rakk Balla Gaye ji di Sa Thiès waaye loolu la wax la Balla Gaye jël am lu ko naqari lool mu ni Sa Thiès nag lu tax Boy la daan Boy Niang di ko daan naa Sa Thiès yow ñëwul waaye waa fii nuus du fi naan leex ñaari yoon loolu nag mooy coow bi ba tax na combat du ko gën a rëy yeneen combat yi ci kanamee boo ma ci tukkee ma ne. jéem Alaaji Malick Thiandoum léegi loolu ngeen tax ko bu baax a baax a baax Alaaji Malick Thiandoum jàmbaar la ci làmb liggéey ci liggéey bu am solo Alaaji Sarr Bigué. la Cheikh Sarr. li ñuy def nag mooy dañuy daal di jox kàddu gi le Don King de l'arène. Cheikh moom mi nga xam ni moo sauvé làmb ci atum ren jii ma bëgg ngeen tàcc bu baax a baax a baax Gaston xaale Mbengue. mu daal di jël kàddu gi wax ci affiche yi nga xam ni indi na ko ci arène nationale waaye affiche yi xam ni jox na ko Sénégal yi nekkee fii ci réew mi ak jërëjëf Malick Press balaa Gaston waaw yow ñooy ànd ñibbi gaay waaye boo rombee gaay ndànd faam nga ciy teg kii boo dëkk ndànd faam su lay teel rek dafa si faam mooy ci Dakar boo duggee biir ndànd faam dox bi ñu am na teg mu naan kalom faam maamam ak maam ñoo fa ànd wuti seen i fas sama maam maamam yëpp ko ñu ko doxal juróom-ñaari kilomètre nga ànd ak nas bi loolu di jël sa ci dëkk bu naan wéer ndax bi loolu